ay ca doore ko candidature bu benn bokk yaakaar ci tribune yéene kaay tànneef la goo xam ne nii ndama nga sa gàccaa nga sa de yéene kaay groupe des médias nee na choix du candidat va imploser l'APR dama ni bés bu président Macky Sall waxee ne kon kii mooy candidat bu benn bokk yaakaar APR tas lay def du samay kàddu de yéene kaay groupe des médias mooy ni xam ne ndax nee na am na si ñoo xam ne nii wane nañu seen bopp nëppatuñu benn yoon Aly Ngouille Ndiaye sa la bokk nee na candidat bàyyi force wala rek nu gol a xam boote doomam Mame Boye Diao ma nga ca biir nee na sama candidature doonu lu ñuy négocier Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba Boun Abdallah Dione Amadou Mame Diop dama ne gaa ñi ku si nekk ma ngay lal tay pexe ci suuf ngir mën doon candidat bu Benno Bokk Yaakaar tribune yéene kaay ni charte ba nga xam ne président Macky Sall waxoon na leen ñu signé ko sax daanaka deful effet te soo moytuwul nag vote sanction dana am de ah ay responsable yoo xam ne nii bu ñu leen tànnul dinañ wax seeni militant bu leen votel Benno Bokk Yaakaar ña bëgg ñi votel leen te seen dara leeragul le point actu nee na mooy ñetti doomi pendanaar yi Idrissa Seck waaw ndaama Karim Meïssa Wade njàg bu yoo xam ne nii nii warees ne mën a génn ba taxawal ay coalition ndaama Idrissa Seck mu ngay wut aw yoon ba tey nag ngir mën a dikkaat ci arène politique bi ndax doole jëwoon nekkatu fi waaw dëgg neexul waa wàllu di parti démocratique sénégalais ñoom nag 138 ya nga xam ne teg dañ ko sa ndoddu Karim Meïssa Wade waaw seen ab candidat ña ngi koy lijjanti noppeegunu Khalifa Sall nag war a jàkkaarloog ñaar ci ay xaritam yëwoon waaw xarit yi démba mi nga xam ne tey jii ñoo ba mu amee gaañu ñu ngi koy ajouté ngir wax ne lii rek mën na kaa doon candidat le témoin yéene kaay ne lii yëpp nag pexey bàyyi ba la woon démb ndax nag 2001 ba muy tëgg kon constitution bi si article 28 ne kon ku bëgg doon candidat tu dois être exclusivement de nationalité sénégalaise le témoin ni ba Abdoulaye Wade di tëgg loolee fàtte woon ne kon am na doom joo xam ne ni Karim Meïssa Wade la tudd te naa mën a ëllëg samp ndëndëm ngir jiite réew mi Alinaar Ndiaye bu PDS nii dama ne loolu du problème de bu dee ñun ñi rek ñun dañoo noppi démb tey di doog a Meïssa Wade ngir mu bàyyi nationalité française am doon sénégalais képp waaye loolu du débat waay jàppale na nekk na ba pare l'enquête yéene kaay ni coow li coow li kay mooy kan mooy plan B laa la wax nii kan mooy plan B bu parti bi nga xam ne mooy Pastef te nguur gi daal di koy tas la guerre des lieutenants n'aura-t-elle lieu ah kay l'enquête yéene kaay moo samp boobu law laaj Walf ni présidentielle ani kan mooy doon favori bu Pastef bés bi la jour daal dikk ne ngay tëgg plan B bi de koy tëgg plan B comme Birame wala plan B neexee tànn neex comme Guy Marius Sagna l'observateur ni plan B bu Ousmane Sonko de mbaa dana def effet mbaa effet ba Ousmane Sonko daan def dana ko def daxaar du saf yoon de ndax nag la koy dëm doo leen jël lekk may mun a jéey aha kay maire bu Patte responsable jigéen ñi Pastef ya mujj nañu ko bàyyi de génne nañu ko ci kaso bi waaye nag sous contrôle judiciaire lañu ko def réew mi ko di ne kon est def ko plan B dana wóor sa moom ndax liberté provisoire la amee de déedéet waratul juum lu ko may rek delluwaat sa kaso ba yoor yoor ne aha kay may mun a jéey boo leen bëggee dégg-dëgg de c'est dame de fer du Pastef mujj nañu ko bàyyi nag bàyyi nañu ko plan man de man maire bu Sandiara conseiller bu président Macky Sall dama ne candidat lay doon bie boo ngeen xamee que noonu nag bi ma duggee sama ruq mën a kan waxtaan ak sama njegenaay dama génn waxtaan ak samay mbokk ak samay nit am naa seen digal am naa seen gërëm am naa seen ñaan kon nag leer na bàkk ba jib na présidentielle 2024 leen si candidat yi kii di Serigne Diop maire bu Sandiara le regard kay ne lii moo tax kay lii moo tax laa la wax présidentielle 2024 s soo moytuwul du nekk présidentielle dama ne présidentielle lay doon candidature yaa ngay jollee Macky Sall bu tànnee parti ba du tas wala coalition ba Pastef bi nga xam ne jàppoon nañu mooy dooleel opposition ba nguur ga tas na ko seen ab leader ma nga ca kaso ba ut plan B di leen tëx waa Khalifa Sall nag Karim Meïssa Wade nag dama ne ñaar ñii ba léegi nag toujours pas rassuré ñu ne deetawaay am ñu am fit laa la wax di jollee fu nekk naan candidat lañu samp seen dënd le regard yéene lii rek moo tax ma ne leen présidentiel la ñuy la wax nii beneen candidat bu la woote de boolewul dara coow wàcc na ci arène bi fekk ji askan wi ngir séddoo seen coono tournée économique boobee yóbbu na sa zone des ñaay ba mu fa demee nag nee na yéen yi de nguurug Sénégal xanaa xamul ne kon yéen da ngeen di teewoo ku leen gunge aha kay bugaan ngay dani mu ngay proposé ñu renforcer leen si wàllum infrastructure de stockage loo xam ne boo leen béyee dootul nëb seen i loxo bugaan ngay dani nee na bi ma demee si zone des ñaay li l'optimisation des cultures ñu ne deetewaay moom candidat bu présidentiel bi Bougane Gueye Dany nee li mënta ñàkk obligatoire de l'approche gouvernementale considérant que dispose de beaucoup de terres fertiles ah kay suuf soo xam ne xaalu rudu rek ñu daal koy bay Bougane Gueye Dany nee pour une meilleure approche du secteur agricole bàyyi leen xel ci lii wax laa la wax nii dara du ko dindi le a dindi kay si bopp ndaw ñi moo di ba léegi gaañaa soixante migrants andiwaat nañu leen laa wax fii ci réewum Sénégal gannaaw cinq jours ba nga xam ne tëmb nañu ko ba ñu gis leen sa waaxi Mauritanie daañu leen andi ni ki ji laa wax si diiwaanu Dakaaru tribune yéene kaay nekk wax ci li wax ca la sa des réewum Sénégal mi ngi mel ni ñàmpe ñax laa la wax ni fépp dëgër waaye nguur gi mel ni kuy fënatal da ñu mën a constitué wu parti civil waa dama ne nguuru Sénégal bu taxawee ne parti civil société civile ngir taxawu nag lii nga xam ne demande sociale la askan wi ne dafa war a leer direct news ne tey maa leen di wax nag fii réew mi tollu tey jii fii réew mi tollu ndekete nag banque yi daal lu ne nga ca dama ne banque yi lu ne nga ca proxénétisme waaw jaay ay xale yu jigéen ñuy baane direct news mooy wax du samay kàddu nee na am na ci banque yoo xam ne xale yu jigéen yu mucc ayib ay óorul ay ni laa la wax tànn sa bu la neex moom la ñuy recruter xale yoo xam ne boo jàkkaarloo ñoom ñoo yor jox leen ko xale yoo xam ne ñun gis naaj ñoom la banque yi di recruter ba noppi ñu ne deetewaay des objectifs de rentabilité sont fixés aux gestionnaires et chefs d'agence ah objectif yooyu nag ngir ñu atteindre ko xale yi jigéen yi la ñuy utiliser recruter leen ci banque bi soxna si nee na man maay wax maay témoigner dama ne banque bi saa bu bëree nit laa la wax ni gaa yi ñëw di retiré borom xaalis yi ñëpp toog sama gestionnaire danaa man jógal nga daagu yow daal jaabante nag defal va la wax nii gaa ñi boo seetee ba si biir nag ñun ñu bari si ñun amuñu contrat de stagiaire la doon laa la wax nii soxna si nee na man nag damaa jekk lool nag taarkaal la sama bàjjen damaa dàmp bëri na ci ay responsable yoo xam ne ni saa su dañ may jéema a booleex ay boroomi doole ndax xam na ñu la nekk seen i compte waaye ba ma bañee dëkkee bañ laaj ma lu ñu def daax xama ca biti loolu moom fa bàyyi woon maa ngi suñu làmb laa la wax Ama Baldé Gris Bordeaux ñii ko yàkkamti boo ñoo xam ne dañuy xaar de ah kay gannaaw ba ñu waxtaanee négocier ba sonn CNG nag nee na jël nañu dogal dañu koy reporter